jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di kontaan ci yéen di leen jaajëfal di jox bopp bi ngeen jox bopp ba tax na tey nag ñoo ngi fii ci wasaare làmb dajale fi ñi nga xamante ni ñoo ngi ci émission bi nga xamante nii mooy euh, jàmaarloo dajale fi xale yi nga xamante ni dañoo bokk ci làmb xale yoo xamante ni nii mbokk yi làmb da leen bàyyi xel ndax nekk na xale yoo xamante ni suñu mu neex bu ñu bëree mu neex ba na tey ma dalal leen fi mbokk yi sama gos maa ngi fi nga xamante ni mooy caataru bés ñu koy wax le procureur de l'arène comme mu jàpp dalay tëj defeere la sama dowaat maa ngi fi am ki mooy Seck Ndaanaan su nee Seck Ndaanaan nag xel yi dina ci lu bari dina dem ci ngor jàpp yoof jàpp fépp ndax ndaanaan la mbokk yi suñ suñu suñu suñu suñu dongalee rek nga xam ne ay mbër lañ ay lañ Seck nuyu naa la waaw fay naa la Ouzin di lu bari di naaw sant yàlla julli si di sant suma waaj ñaari waajur di sant sama yaay di sant sama di sant monde entier di sant ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan xam nga di sant ñi nga xam ne ñoo toog ci plateau bi si boor di nuyu Jo bi nga xam ne moom laa àndal sama doom nday xam nga di nuyu waa Yoff yëpp xam nga di jël nuyo bi xam nga di ko teg ci loxo xalif général bi di jaale yoof gi yëpp nga xam ne Baye laa Thiaw suñu xalifa bi nekkoon foofu dafa wàññeeku di ziar ñëpp. di nuyu procureur waaw man <laughs> koy wax procureur. a baax di la nuyu yow tamit. di rafetlu teewaay bi fii nii tamit xam nga di am contentement pour toog ci plateau bi baax a baax di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp. Thiatou Reubeuss nuyu naa la. waaw fay naa la aussi onze bi la bisimilah ina waani yàlla jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba gàcce ngaalama Baye Afia Mbacke gàcce ngaalama Baye Afia Mbacke. jërëjëf Baye As Mbacke sama sëriñ jërëjëf Baye As Mbacke sama sëriñ di nuyu waa plateau bi di nuyu Sibor di nuyu sa caméraman di nuyu Seck Ndaraan ak kim àndal di ko bëggee di nuyu. di nuyu fa ma jógee waa Reubeuss asale xam nga fi may liggéey Asala Montagne Sèye Bissap benn tali biscuiterie maa ngi bëggee gaa yëpp nuyu waa Rëbës nag Medina Dakar Plateau bàyyi ma fenn waaw ñu bëggee gaay yëpp sama waa dëkk waa Diourbel kër Cheikh kër Balaye Pikine Sande Course bu daay maa ngi bëggee gaay yëpp nag xam nga dina ñaanal jàmm di nuyu DG Seydou Diop bu baax a baax a baax xam ne liggéey bi mu def si Diourbel rafet na trop DG Seydou Diop sama papa la sama xarit la ndax te jii xam nga mu ngi jàppale seen si Diourbel bépp da comprendre bërki démb la ñuy paas la jënd ambulance médicale pour kuy faju foo mën ne ci Diourbel mu jëli la sa seet yooyu dafa rafet quoi dañ koy soxla ci homme de politique yi mu wax waa jeunesse jàppale ki xam moo DG Seydou Diop ndax mi ngi jàppale jeunesse su na gaa yëpp gën a dooleel ko xam nga bu ko neexoon li mu yor mënoon na koo téye moo ko waa kër mais benn benn message nag ñun dëkk kër Cheikh day hmm. ñu wax Malick Fall mu ñëw jàpp ci ñun bàyyi ay at ñu ngi koy dund da nga comprendre kàggu mi fu la dëkk fu la dëkk waaw ay at ñu ngi koy dund tey jii bu tawee ñu bari dañuy génn France seen kër te loolu dafa ñaaw rafetul loolu chaque année nañu gaañoo jàppale liggéeyal ñu loolu Malick Fall maire de Diourbel la ñu waxal lu ci woon ak déjà Seydou Diop moom Seydou Diop ñëwal jàpp ci sa doom moo la suñu ko ñu day taa gaa yi ci mbedd mi dañuy France loolu dafa ñaaw yow sama papa nga sama lépp nga su ma la wooyee moom di nga ñëw di ñu wuyu si ñu lay ñaan lépp li nga bëgg ci maire Diourbel yaa xam suñu borom defal la ko wasalaam euh, ñu gis la boo bi nga bi nga bi nga bëree ba léegi kenn gisaatu la kenn déggaatu la ci lan nga nekkoon Ouzin wax naa la ko démb te dañuy jógee ci benn combat borom bi moo ñu daa may moo ñu xañ. non balaa ma ñëw balaa ma ñëw ci nga ñàkk sax dama ñëw ci seen signature bu njëkk euh, moom mii liis Ndiago la doon dajal combat moo Liss Ndiago mais combat bi mu taxawee fële ci arène national coow li bay woon na fa nit ñi bari nañ fa sa signature yi yow ak moom metti woon sa diggante yow ak moom lan la woon ba keroog bi combat bi taxawee nga ñëw def présentation rek coow li bàyyi woon sa diggante ak làmb xaal moo mel noonu tey caatu ba tey ku man am coow day bëri ci làmb moom coow dina bëri bu làmb jeexee jeex na ay noonu ñu ñëpp ne bokk ndey bokk bàyyi xam nga tey moom mën a may xaalis maa ko mën a may xaalis esprit ma bëgg ko doxee quoi ak supporter yi ay noonu tey ji bu ñu jóge beneen dëkk day mel ni mosu bëri ñooy bokk ndey bokk bàyyi mais tey gaa bi ñu yor nan ko teg mbër noble la mbër champion la mbër VIP la ay xam am combat gars yi jaay per loolu doxul te maa ngi lis njaago benn taw saan moo ñu boole tey ji jeex na tey ku defoon leneen lu dul làmb tey rus nga. Mhm. mooy ma même lu caatu ba si ñëpp mbër yëpp ah ñu ñoo bokk ndey bokk bàyyi dama bëgg mais ko te tey jii daan ndam lu mu rëy du génn Dakar. Mhm. kon nay rafet saa su ne tey bu daanee caat na war naa mën a daan caat tey man tey jii mënoon naa ko du ma jig amaana li moo gën ci man saa su ne si heure su may ñaan képp ku ma mën di ñaanal fekkee ma amee ndam mu jig ma yàlla na am ndam fekkee ma daan du ma jig daan ndax adduna du benn fan du ñaari fan li su ma daan war naa mën a daan àdduna mooy loolu ma ko ñaan ndam bi yàlla na ko jig waaw. mbokk yi gis ngeen message bi lancé dama lay pose foofu ñëw ci Seck Ndaanaan Seck sa digganteeg yow ak Mbaye Khada lan la woon parce que gis naa seen face bi ngeen def fee ci Arène Nationale yéen tamit na fa ñëpp yaakaar nañ ne yow ak moom combat bi du yegg ndax jot ngeen fa xeex te CNG dafay aaye loolu sa diggante yow ak moom ñu bàyyi na yéen nag yaa ko tooñ. waaw làmb la woon rek te làmb li mu làmbool moo bari làmb da nga ciy da nga ciy dugg mais bul xam noo ciy génnee. yaa ngi dégg loolu nag dafa yàgg ndax man ak moom mbapat la woon yaakaar naa mbapat la ñu waroon a bëree mbapat bi yàqu. jotoon ngeen ñëw ba ci mbapat bi wala dafa taxawoon wala dañ ko doon dox. dafa taxawoon carrément taxawul sax ndax taxaw taxaw na taxawul daal ndax combat bi promoteur tëgg na ko jotuma avance. te moom amaana ba jotoon na avance mais man jotuma woon avance. xam nga ñi ñi di ko waxtaanee ba signature bi ma ñëw suñu signature première signature noonu la demee. coow lu bari yoof la woon. yaa ngi dégg ma signature ba pare toog di dégg promoteur bi jotuma avance lamb ji jot lamb ji jub si mooy déglu promoteur bi ba pare boobu maa ngi doon bëri ay tournois yu bëri dem damaa damaa ay tournois ba feebar. ok boobu xam nga mooy waaj waaj waaj waaj waaj mbay xadaa tamit waaj ñëw ak ay mbokkam man man sama booy dew ma bëri ji ndax fayuñu ma yaa ngi léegi ñu tuddee ko daw. kon da ngaa daw kay. waaw ok man neen damaa daw comme te daw ngeen ko tuddee ndax man du ma dem bëri te yow joxuñu ma xaalis. Mhm. yaa ngi dégg Zé moo ko tëggoon rakku bas cung drapeau Omaro ñëw na ba sama gàlle moom ak Zé ñu toog sama yaay waxtaan sama yaay ni leen lijjanti leen ay yéen ak moom yaa ngi dégg. Mhm. ñu jugee ci loolu doxal mu bëree quatre combats arène man bëreeguma sax arène. jot na bëree quatre combats. bëri na quatre combats ba ci cinq. non bëri na cinq combats. non quatre combats quatre. sa bos mooy cinquième. non moom moo bëree quatre combats man bëreeguma arène. dugg na ci làmb quatre am si ay quatre combats man bëreeguma ndax su ma juumul man samay moroom ñoom ñëpp ñi ñëwoo samay morom amaana doon ma dégg ma par xam nan ma mais ñoo ma njëkk a bëri arène quoi. ndax man sama âge matul woon. yaa dégg ba pare mooy loolu gars yi amoon nañ benn yërmande ci man ba nanguwul ma bëri arène may bëri mbapat nag di génn ci àll bi di bëri ji yàlla def mu bëri bëri mu jël sa moom moo tax combat bi ñoom ñoo woote taxawal ko. moom moo buggoon sa combat yow. moo ko bëggoon man damaa nekk salle de entraînement rek ñu woo ma ne ma seen combat taxaw na man leen taxaw combat bi taxaw te ko ma ñibbi promoteur bi woo ma xam nga ma daal Ndiaye woo ma ñu ni ko combat bi confirmé na man tamit ma dem entrainement ji ndax oytul ku la daw ba ñeme la loolu rek la woon ma entraînement yàlla defal ma ndam. ci kaw mais science bi ngeen ñëw. waaw taxawal fii du ma taxaw fii dama koy jege. jékki-jékki ñu gis koo yu commencé daal. maa dem jige ko. yaa ko jege. man maa jóge fi ma taxawoon dem ba fi mu taxaw jige ko ndax làmb la rek ñun ay xale lan luy neexal chaque jour ci la ñuy dox. mais paa loo xam ne. mais bi nga ko jegee jege woo ko mu dóor la. dama ko ñenn ñi da nga koo da nga koo da nga koo ko am lu ma ko laalale. ndax loolu ci làmb lan ko fekk ci lañ koy bàyyi. mu dóor ma ma taxaw fayu ma ma taxawaan mu dóoraan ma te góor laa ma fayu. ñu jàppante foofu ma ciy jégalu sénégalais yëpp tamit xam nga di leen wax ñun ay xale rek lan ba pare di ko masaw moom tamit ndax loxo bi dafa damm. maa ngi koy ñu koy waxee dama lay daan ba damm la noonu nga ko def. man nag bugguma ko woon damm xëy na lamb jee toll foofu rek. ak mais situation bi ngeen yegg ba loxo bi damm lan la. dafa nañ da nga ko doon mbot di ko di ko di ko bës. wala mu demee dafa daw dugg sama wet. noo dawul sax dugg ci man maa ko plaqué mu dal dal suuf ma xool ni moom pied gauche la ba pare jox na ma pied droit ceeb foofu du fa foor waa hmm. mbër boo gis am na fu mu gën a fooree. Hmm. léegi foorul ci pied droit bi ma forcé ko foofu mbooti ko. day daanu wala mu dam wala leneen rek. mu nga nga ma bës waaw bi ma njëkkee botti sax dal na. mais arbitre bi gisul loolu léegi ma ansonné mais jubluwu ma si woon pour damm ko maa ngi koy masaw di ko jégalu bu baax a baax ndax sama nawle la quoi xam nga yéenewu ma ko loolu te bàyyi faal la tamit combat bi mu taxawee amul lenn loo xam ne dund ko ci lu ñaaw. maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko wax yàlla may ko tan bu amaatee beneen combat bu dul waa écurie Yoff yàlla defal ko ci ndam. gis ngeen noonu la def daan ki nga xamante ni mooy mbay Khada mais damay ñëw ci ci ci ci ci Thiatou Rebeuss Thiatou Rebeuss sa combat ak Liss Ndiago ñëw Liss Ndiago du stade bi ma tasante yow laaj la nga ne ma lii muy def loolu ci am mais ngeen bëre mais bëre bi neex na amateur yi mais ñu bàyyi nee nañu euh, da nga dem ba ci biir mais da nga concentré wul ci biir làmb ji. waaw Ousseyn combat boobu noonu à chaque ci ñëw ndax passé na. non il faut ñu ñëw parce que ma nga ñu ci ñëw dafa nekk làmb joo xamante nit ñi dañ ko doon xaar. mu nekk làmb joo xamante du ko bëggoon yow. boo déggee boo déggee sax bëggoon ko. Mhm. mais yàlla dogal nga am ci defet. Mhm. te yow mi ku la ah, bu ñu nee woon suba làmb ku la waxoon boo demee liste lay da nga naan ko déedéet. ba bi ñu moom mais boo déggee ma ne bëgguma di si ñëw combat bi ma ci daj ay coono ak samay mbokk dem ci fu nekk. da nga comprendre préparer ko un an. parce que maam Serafal. lan moo la ñàkk lool ma ñëw làmb ji ku ñëw stade même man maa ñàkk mais kenn jëppiwu caatu rëbës. Mhm, loolu moo tax su ma ko seetaanee damay meer xam ndax la fa am lépp mën naa ko def mais borom bu ànd ak yow mën na wax am ndam. tànk ba. waaw boo waree ñàkk lu ndaw <laughs> boo xoolee man maa bëtt man maa mboot. Mhm. moom dafa fa dara lu ndaw la fa def. tànk ba waaw tànk ba mais sant yàlla ndax tey boo xoolee ñi nga daan daan yow gënoo leen day gënoo leen bàyyi. Mhm. heure boo ñàkkee da ngay jug defarwaat te xam ne tey yàlla yàlla na yéex yàlla na yéex am na yeneen def yi mu war a daanu yàlla na yéex ndax làmb bëri ak daanu ñoo ànd ah. te tey jii man ku ma waxoon Liss Ndiago dina daan ma koy wedd ma ko ñaan ndam man du ma ñàkk pare di mais bëre bi mën ma ci ñëwal bari ci ci jibi jàppante rek gis naa fa jàpp tànk nga boo gisee bëri làmb ndax boo moom bëre bi li mu doon bëre yeneen gaay hmm. bëru ko man ko taxawaay bi yàgg moom dañ ko yeb mu ma doon bàyyi xel te man amul dara ma man bàyyi mu xel moom ma bàyyi xel ndax moom àdduna prix mu doon dox sa kaw mel ni benn ballagay buy léew too dox sa kaw gauche droite bu fekkee sar nga ay ñu bëri ay rendi seega ak général Kéré ndax bëri na ko man doon bëriwaat du bëriwaat du ma joxaat cër te làmb ndax lan loolu xam dañoo xamante maag moom avant moom daje nan yéen ñaata sa ngeen avant signature bi maa moom daje nan c'est que nag làmb bu taxaw coow li mën na bëri xam nga mafia bi fii xam nga mais ñaari mbëri dem ci géew bi ne ku ne li nga capable ak loolu la quoi mais àdduna du benn fan du ñaar mais bi bi mu la daanee ba nga ñibbi toog sa kër lan xalaat. sant sëriñ Touba bu wér a wér barki Alxuraanu Karim damaa sant sëriñ Touba bu wér sant maam Cheikh Anta Mbacke sama yaakaar xam tax dama ñëw fekk sama papa toog mun ne ma bi nga mujjee bëri loo andi mën a ko ndam ba ci topp loo andi mën a ko ndam mu ne ma sant yàlla nga dem sangu ji gaa yi fa nekk di jooy sax ma sant yàlla dem xam na tey li li nekk na moo dàq na tey ji man dama am benn nattu te dama bokk rëbës mbëri fa nekk booy. Mhm. barki alxuraanu karim plateau rëbës ku fay takk ngeen maa ngi nekk xale. su entraîneur man bi may am licence di bëri. billaahi wallaahi damaa xool suñu waa entraîneur damaa def mbapat ba tëm mbapat sama koñ. billaahi wallaahi taala fekkee li moo dëgg yàlla mooy àgg fa ma jëm. ma dem ba amatuma daan samay morom daan sama yenn grand yi. ma booy di bëri xam ne mënuñu maa mënuñu ma ma ne gars yi damay am licence gars yi am doo am licence ma ne lu tax te ñii di bëri mënuñu ma ñu ne ma amagoo taay bi amagoo gébri bi te amoo adversaire boo mën a bëri bëri ma ne danaa bëri ñu ne ma doo bëri ma dem ci suñu entraîneur ne ko ikkeetu ikkir bi laa soxla dama bëgg tàmpe licence simple dem di compétir quoi mhm. fekk dama ko teg xel quoi léegi mu jox ma kër ma dem tàmpe bëri dóor bi ma demee CNCF maa ngi ko fekkee njàmbe <laughs> bi ma ñëwee ne ko tàmpe ma bëri dama daa sigi xoolaat bi ndax ma toll ndax boobu dem naa ba am amatuma ko mën a bëreel te lamb yi gëm naa ñii di bëreel mënul ma ba pare ma ñëw man yàlla nattu ma xam tey ku ne caatu rëbës tey jëmm ji tur bi dafa ëpp jëmm ji quoi tur bi tey caatu koo xamul ci de foo taxaw ikiri boo taxaw boo ne caatu rëbës yaa man caat du sama njàmbaar du sama njàmbaar du sama ngóora barki alxuraan du sama njàmbaar du xëy na lu borom bi def ci ñun la ak taalib bi ñu wane fi ñu dëkk ak yëg bi ci doomu aadama tey ji bu ñu takkee ngeen mën nañu nekk leneen dañuy aalu yëngal mais bu jeexee jeex na jour làmb gane la ñu doon bu avant bu làmb jeexee ñu nekk xaru yar loolu la ñu xam ci la ñu yar ci la ñuy tette ndax ñun fi ñu bokk la mais dégg ñu naan le procureur de su ma la andiloon euh, Seck Ndaanaan ne la nga moo ko lan nga may jëkk a wax. waa Seck Ndaanaan champion la ñu ñëpp ay génération la man sax su li may wax ñu ñëpp ay génération du Seck Ndaanaan ak gaa yëpp fii kenn rawut kenn fii kenn rawut kenn man gëmuma loolu am laa gëm te ñëpp war a tekki dimbali suñuy waajur man damaa judd ci kër boo xamante ni dama judd nekk xale kër gi demeewul noonu ba demee demeewul noonu ñuy góorgóorlu di liggéey boole koog làmb ji te yii lenn rek mooy suñu wax man sax ay roi des arènes man naa dimbali sama sama papa ndax man sama papa laa dese sama yaay 2002 la génn àdduna te yii paa bi mu commencé jëm mag te ñu ñoo ko war a mën a taxawu amaana même bu ñu ko yaakaaree ci làmb bi yi jàppale. bàcc sëñ Fall waa Rebeus dañu leen di jàppale ndax tey ñun mënuñu am lu Rebeus ak tey jii réew boo fa duggee mënoo benn mbër tegoo caatu rëbës moo def loolu noonu c'est à comprendre mais quant à ay Seck Ndaraan yëpp ay adversaire fi kenn rawut may boo xoolee ñun suñu dañoo may boo limee benn mbër dañ ci teg caatu rëbës xëy na leen ëpp tur mais rawuñu kenn mais caat moom fi pour lamb ku lamb boole waxtaan ba déggoo par naa pour bëri noonu nag su ma sañoon say morom kenn mënu leen a jeexal hmm. say morom boo fi doon bëri fi ay at kenn du leen jeexal mais grand frère yi ñu ngi ñu taal la ñu loxo ma ñu chance. comme kan. bëri na te sama combat Tapha Gueye de presque taxawoon na. Tapha Gueye de. ñu ngi war waroon bëri ci combat général fii sa Balla. avancé waroon a génn moo des mais li gars yi at làmb moo tax mu yàqu. mais man dama doon bëri waat ren bi ma bëri li ba pare ma doon bëri sama combat presque taxawoon na ci a bëri waat yàlla dogal lool noonu même bu dul Tapha Gueye de keneen grand bu mu may chance ñu jël ndax man nekk ma fi bëgg jeex samay morom. mais sa digganteeg sa digganteeg Seck loolu làmb làmb làmb làmb làmb jànk la. Seck naan la mi ngi bay waaye dégg nga li ma la déglu sax de. oto bi ci kanam oto bi la ñuy corné. <laughs> waaw oto bi ci la ñuy corné mais kenn du corné ci ginnaaw. tey Seck Seck ni mën a bëgg bëri ak man man noonu laa mën bëgg bëri keneen. Seck bëgg bëri yow. non Seck du ngaa ko Seck maa ngi saa <laughs> ah. moom de. ah. comme de bëggul bëre ak man kay. bëgg naa bëre ak mais fi toll xam nga làmb nii rek. man li mu wax rek man Tafa Gueye wax nan ma ko. wax nañ la Tafa Gueye de. mais bëreewu ma ak sama moroom laa bëre làmbu njërndeem. su ma àndoon caatu bës di nga jël avance am. ah damay dem rek xool ba xam dina ma defee rek. mais amul problème comme te buggul moom day bëgg a xool ci kanam. xam nga tey làmb làmb daa paase déglu ma déglu ma. làmb non dama lay wax ba fii non dama lay wax déglu ma déglu ma ma la. duma déglu man mënu ma laa andi ba fii nga ñëw fii di di di nalaw ak di yeewoo ak away demee noonu. xam nga làmb tool nii. làmb daa paase. waaw. bari combat. làmb coow la. te làmb du ay combat moo lay génne benn combat moo lay génne. yaa ngi dégg. maa ngi dégg mën ngaa bëri dix combat. yàlla def nit ñi duñ la coow nga bëri benn combat boo xam ni yàlla day def sa coow foofu la war a jugee yaa dégg. Mhm. yaa bu baax te ñun ñëpp ay morom lan comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp ay jeunes lan ay xale lan xam nga ragalante woon suñu biir yaa dégg man bu ma sañoon suba suba mu bëreeg Balla Gaye mais xam naa ne mënul nekk am na wala amul. dëgg la samay morom a ngi ci làmb ji. ku ci pare pour ñu bëri amul benn. non fi mu toll nii yow caatu rëbës laa fi andi sa diggante caatu rëbës la ñuy wax. parce que man am na am koo xamante ni woo na ma nee na ma diggante caatu rëbës sekk ndaanaan dama koo te am naa ko ne ma am na dégg naa ku ne ma. Hmm. daf maa wax ne ma caatu rëbës sekk ndaanaan boo ko joxee avant caatu rëbës mu jël waaw moom te kooku ku la jege la. ku la wax ni man mooy ma joxee avance ma jël ko. waaw man pare naa pour mbëri yëpp maanaam. Ah, mais nag mais nag dama lay wax leen bi man damaa am plan de carrière man nekkuma fi mbër mu tëb jug ma bëreek moom non ndax man damay ñëw ci làmb neexal làmb du ma bëree ak mbër mu amul coow du ma bëree mbër mu dul neexal parce que doomu géwél laa te waynde laa waynde tudd loon waynde weddi dee la tudd ah, waaw waa dama bëgg maanaam ñoo xam ne dañuy saf làmb dañuy ñëw bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex tam man may man damay damay neexal làmb. mais kii dafa wax léegi doo tudd mbër yu ndaw ñaar ñett te boole woo ko ci. man di nga tudd mbër yu ndaw kii ji doon ci làmb 4 ans. barke Serigne Saliou. ñeenti man 2000. ci làmb léegi loo bëgg du tardé ay moroom lan. kii bu ma bëree sama benn premier combat la fekk la ma fekk stade. ni ma yow bu ma la jàppee dama lay duma man ne ko ok amul problème boo ma jàppee duma mais Seck lu ne laa bëgg ci loolu làmb ma lay laaj tool. non laajoo ma de waxuma la day am. dañuy waxtaan quoi non dañuy wax ba tey dañuy waxtaan wala. <laughs> waaw mais kii jiitoo ma quatre ans yow ban nga dugg si làmb. waaw xam nga ban nga dugg ci làmb bi ngay bëre yow bi ngay bëre. 2020 la bëreew ma Iba Mar moo ngi noonu yaa ngi juum. bëre nga Iba Mar Seck. bëri maanaam sama premier combat bëreew ma ko Iba Mar. Eh, waxuma ne sa la kii daan booy bi kii bara joon. booy Fisel waaw bi mu lay daan. waaw waaw boobu boobu. balaa nga la jël mbay xanaa ankay. Seck dafa la bul juum man mbay guy gi Alioune Seye junior laa bëri. 2020 la loolu. yow seetaan naa la yow. léegi yaa caatu fora bëri benn combat la am. déglu ma. sa caatu fora nga jógee jël lis njaaw kii bi muy bëri caatu fora benn combat laa bëri. Seck ma lay wax dañuy waxtaan quoi. waaw nekkul lii ay lii dañuy waxtaan. waaw ñëwal man. yow bi ngay nga ne sa premier pas mbay guy Alioune waaw juum nga Seck ma damay dund làmb déglu ma déglu ma déglu ma Seck bi ngay bëreek booy fisel waaw mbay guy Alioune xam nga kañ la loolu yàggul du yow avant deux mille waa Seck barki Seydina Mouhamed sama premier combat mbay guy gi Alioune Seye laa non non maanaam man waa dugal YouTube soo premier combat Mbaye Gouye Gui Alioune la bu ñu wérante si loolu. man xanaa yow gënoo maa xam journée yi ma bëri. premier combat Mbaye Gouye Gui Alioune Seye deuxième combat Mama Lamine. kii Jokkel dégguma Fallou Ndiaye Mama Lamine Jokkel si laa bëri yéen bi ngeen di bëri si ay tournois yi Fallou yooyu mooy yim doon tëgg ñoom mobile ñoom ñooñu bëreeguma arène wallaahi lazim <laughs> barki Seexul Xadim si combat Mbaye man déwén si làmb Cheikh gis nga làmb la. kii bëri na quatre ans bëre. <laughs> barki alxuraan kii su su ma jumul combat caatu ngéwél kii la njëkk a bëre. caatu ngéwél ak kan ak ak kii kii ka moo caat du gënd woon si làmb. wallaahi waaye non non maanaam du mag de xam nga làmb par génération la kii bu bëree kii bëre kii bëre mais kii gënumaa xam man jour bi ma bëre man mbay guy gi Alioune Seye laa bëre sama premier combat. man yàgguma ci làmb coolee bari rek. barki Serigne Saliou Mbacke wallaahi lazim. aw ma coow man aw ma coow man dëgg. caatu bës fekk na fu ma taxaw ni ma làmb coow koy coo coo coow moo lay yóbbu ci làmb te am yaa ngi commencé am coow. kon bu toogaatee fii bu toogaatee fii naan man aw ma coow moom. kii baax baax laa ko tegoon mais dafa soxor. non non non ay yow yow man dama laa jàppe woon maanaam nit koo xam ne day wax dëgg. yaa ngi dégg kii xamul sax kañ laa bëri. moom mu ni moom moo may corriger moo may wax man kañ laa bëri man mbay guy gi Alioune Seye laa bëri loolu bërki démb la. Mboy Guy gi bi mu jugee si combat boobu ba léegi benn combat la waat ma bëri un an ñuy tëkkale man ak ñoom ñu ni moom ñoom ñoom a raw jël garaaw. ñoom bu mu bëree xam barki alxuraan sama morom bu bëree wul wax man ren déwén di nga bëgg. Sele avant ñu tëj Iba Mar bëri nga de. déggu ma avant ñu tëj Iba Mar nga. Iba laa bëri ñu tëj ko. yaa yaa Boy Fissel du du leen 2020. aywa kii kii yaa Boy Fissel kii mu ngi dund <laughs> ñëw xanaa. kii bu ko Boy Fissel di daan déglu ma du moteur ñoo ànd maa booy Ficelle 2020 lan bëri 2020. yow bi ngay bëri ak booy Ficelle maa du ma ñoo toog ma ne ko sekk mii de jël na booy Ficelle ba nga xamul ki muy bëreel. wallaahi ma sawar doomu moo la benn affaire fii. barki seexul xadim samay morom maa ci man. nangu maa si man. daa am laa bëgg. déet lu nga koy nangu nga lu garaaw laa lay wax loolu. xam li gaaw koy nangul. mais man tey jii yoof su ma koy amee adversaire mooy bëri yoof pour l'instant benn adversaire laa fa am muy Thiatou Nguéweul. man Rebeuss aw ma fa adversaire. double moteur laa fay bëreel. xam nga Thiatou mu ànd ak man damaa yàgg osé maa ngi ay trois combats maa moom bokkoon journée. ñëw ci kaw tribune bi. boobu ma. fa la fekk li ma. arrêté bëreel xam nga lu tax ki. Seck bëreel tey garaaw loolu amul xam nga lu tax Thiatou ma ñëw na ko jël ma ñu bëree mu ne ma booy ma sa morom dama liggéeyi est ma xam ne kii wax nit la ma wax ma dem liggéeyi te saa bi bañ ci làmb fayeeku ëpp ma lu muy fayeeku ëpp ma lu dugal su ma bañee lu may bañ ci lan la may bañ yow moom rek laa fay bëreel yow. caar ngir laa fay bëree ku lu ma bëri yow. mais nag mais nag bu ko ah. yàqee ne moo waaw ay raw de maanaam damay wax li may def ko man rëbës xam naa ne ñoom booy barki alxuraan booy maa daan. nga ko teg wallaahi lazim samay moroom maa ci man. maa ngi lay wax loolu toogal di seetaan. non wax nga wax fan nga ko teg fan maanaam dama da leen dàq gën a mbapat. maa leen ëpp lu ma jël ci mbapat samay moroom laa la wax li ma ci lekk ci mbapat amul booy bu ko ci lekk. sëriñ Touba xam na loolu wallaahi lazim te maa leen man ñoom ñëpp kii laaj ma ko de mosuma koo laaj ki ko daan mosuma koo laaj julli reer la ak reer julli taxul reer mucc man ak ñoom kon la rek te wëri jam wii ku ci daw tay suba dinga ñëw wala man ma bàyyi la fi dem loolu kese la point amul leneen ñu laasaal benn appel Ousseyn te nga wax ci te nga wax ci kii. non xam ne man man damaa xam ne lii làmb ju neex la. kenn laa laaj. damaa xam ne làmb ju neex la parce que ay xale tamit ngeen nekkee ci làmb bu wala sinon bu ngeen fi dawantee ñi dañuy dem ci paa yi ñi dem ci ñi waaj génn làmb ngeen ngeen tasante foofu ñuy taxaw. te pour ngeen pour ngeen de yegg foofu nag mu gën a gaaw il faut ngeen jëflante seen biir. Ousseyn man samay morom déggoo li ma la wax ma ne dama la man la laa la wax. màkka la plateau bi nga ne ma sekk man la Ousseynou xam ne ma la du ma ñëw xam tax yàlla xam na du maa ngi. wallaahi du maa kii ki ñu ko daan lan mooy proposé Paa moom barki Seydina Mouhamed. yàlla taxaw ak jàmm garaawul. xam nga di nga maanaam lu mu wax. waaw Seck booba Seck war pare wu Seck man laa gàttal loolu kese la point. kii ñu ko daan lan mooy proposé barki Seydina Mouhamed. xam nga di nga daan bëri ana raw. xam nga di nga daan bëri. xam man li gën a garaaw ci man man képp ku ma bëgg a bëree yow laay bëreel man tamit ku ma bëgg a bëreel yow laay bëreel. waaw léegi yéen ñaañu du ngeen bëgg a bërante seen biir. kii wala déggoo li ma la kii dama moom man. kii bu ma ko daanee ñëpp daan naan maa yaa ko. da nga yaakaar ne looloo tax bëggut a bëree. looloo non non maanaam du ay looloo tax bëggul bëree man de kii bu ñu doon bëree ñëpp dañ naan Seck ah moo ko bu ma ko daanee ñëpp dañ naan moo ko. kan mooy wax loolu xanaa ñi la fa. wallaahi ñëpp ñu ma faralul sax yow mi sax bu ma daanee kii da nga naan maa ko man. man kay du ma ko wax man. wallaahi kii benn tànk bi laa génn rek ak Serigne Bamba. sa waay nag dalaa xeeb quoi. non du xeeb maanaam dama ko mën daal. xam nga xam ñaa ma la. Onde le Fou bu ñëwee ñu bëre. Caatu Ngewel su ñëwee ñu bëre. Bébé Bismi su ñëwee ñu bëre. trois adversaires yi ku ci ñëw ñu bëre. man dama fi bëri déglu ma la samay morom damaa daan. samay morom daan est-ce que nga comprendre te làmb kenn mën a jeexal samay morom sax lu may wax man moom ku ma bëgg a bëri laay bëri sax su promoteur yaa ngi may woo barki alxuraanu karim damaa bëri li si njaago ci guddi gi jéey woo ma dama joxaat combat maa ko dafa teel boo jógee ci defet waroo tëb tëb lépp looy dugg dafa war a leer sans comprendre mhm. kon man du ma war a ci benn promoteur man li gaa yor man li gaa yor ma ko yor muy lan muy public di coow barke Serigne Fall sama morom sama morom amul boobu mu fi ëpp kase ku ma ci ëpp kase mënoo ma ëpp kase yow li may wax xam nga ci dara ku ma ci ëpp kase mënoo ma ëpp kase la moo tax may bëri di bëriwaat di bëriwaat rek tey boo amul mbooloo kenn du la tëgg mhm. loolu loolu la quoi may xam nga may lancer nag benn message bu defee cinq ans ci làmb ñu mhm. koy tëgg man mi def un an ci làmb am trois combats man ci a wax moom. def cinq ans ci làmb ñu koy daan bu daan bu daan suba mu mais ñaata at nga def si làmb mais tamit lan waxtaan kii xamul sax at yi mu bëri kii ku ko laajoon ay atam du la ko wax. barke alxuraanu karim kii ku ko laaj du la ko wax kii man it kii man 2020 laa bëri mu ci werante. kii ku ko laaj ah, ma ne ko cinq ans nga def si làmb mu koy werante calculer. yow combat kan nga dugg si làmb. waaw ban laa dugg ci làmb. non déedéet moom laa xam nga man damaa wax mu weddi ma. Hmm. léegi yow jour combat kan nga dugg ci làmb ñu calculer loolu ba xam matul cinq ans wala six ans. xam nga tey xam nga tey làmb gën a garaaw. ngay wax ma ne déglu nga may déglu bu nekk ay dof nangoo nekk nga ak te naan dégg nga xam nga léegi boo doo xool maa la gën a nekk conteneur nga xoolal conteneur nga ak ba naan moom moo la tane dama bëgg a nekk loolu nekk kii baa ngi Seex Rafal maa ko gën a nekk nit yaa ngi may dégg kii Seex ka waxi dof la fiy wax waa imagine nit yow calculer ay atam wax na jour dans la bëri si làmb nga ne ko kii moo ma gën a xam man jour bi ma bëri kii gënu maa xam loolu kii bu ma nee ko man jour combat diw ak diw laa bëri moom dama ko war a nangul parce que moom bëriwul man maa mhm. moom dafa neex naa ma ay yàggul yàggul mais si laa prouvé nii ba ñi di ma mais la moo tax la moo tax nga bëgg xeeb sekk. kii xeebu de dama ko man yaa du ma xeeb doomu aadama. laaju ma ko tamit la moo tax nga bañ ba. muy leer fii xamul tax. damay proposé yoo xam ne ñoo ko xam ne ñoo ko daan ñoo ko raw ci làmb. naa loo xam man. ay nëb buy cité ñooñu calculé ñooñu ku ci may wër ndomba du ma daan. barki Cheikh Ibra Fall kii ñu ko daan ak ñi mu daan. wallaahi lazim ku ma ci may wur ndomba du ma daan. Ousseyn samay moroom maa ci man te ci kanam dinaa la ko waxaat. baax na. loolu amul sens samay morom maa fi man tey su ma wax ma ne man maa man Balla Gaye 2 te ñëpp xam nañ li ma te te ñëpp xam nañ li may wax loolu laa ma xam kon carrément Ousseynou mi xam na yow li nga wax amul Ousseynou mi xam na ko laa bàyyi ci biir bu nangoo nekk dof may laa nag benn message président Macky Sall jeunesse bi dañoo sonn lépp yokku na barke Alxuraan muy ceeb xam nga di suukar di lépp nañu dimbalee ngir yàlla bàyyi affaire yëpp seer na bàyyi sax dégg naa fukki dërëm war na Serigne Fall te loolu du yoon bàyyi président ñu ñoo doon am ñun yërëmal sa askan dimbale ñu ñëpp bokkuñu ñu am ñi ñoo am doole ñu amuñu doole juróom baaram tolloo ñu saa su ne loolu la ci bàyyi xel wër na sëñ Fallou Mbacke nga wàcc ci terrain xam ne gaa yi dund ñuy dund dafa metti trop wër na sëñ Fallou da nga ñëw sama koñ sax mooy loolu noonu xam nga jàppale jeunesse bi ñu war a bi a liggéey jeunesse bi ñu jàppale jeunesse bi mu liggéey day jëm koñ boo jeex dangaa fekk jeunesse toog amuñu xëy amuñu gont loolu du te ëllëg bi ñoo war a yor bi war a téye Sénégal bàyyi ci xel bu baax a baax président de la république waaw moom nga tàggatoo waale moom nga signalé na temps bi li ci des sant waa Rebeuss ñëpp sant waa Rebeuss ñëpp waa Diourbel encore une fois di sant waa Diourbel di lancer benn message DG Seydou Diop ñun ñu ngi ci ginnaawam waa Kër Cheikh rawatina waa Diourbel ñun ñëpp génn jàppale DG Seydou Diop xam barki démb rek lañu jëndal xam nga ah benn capital dina ni oto. pour ku bëgg faju foo ne ci Diourbel mu jëli la te loolu acte noble la acte acte VIP la nag génn jàppale ko moo xam li mu bëgg nag yàlla ko yàlla defal di sant sama booy yëpp nag. xam nga ku ci mel ne xës seex kan maa moom benn day sonn ci man bu baax a a baax ñoom bas ngaakam aba le procureur des terres ñoom bara bu sëriñ Saliou di sant nag sama patron koo xamante ne man ñëw ma ay Moget ñëw ma ay Malick Gakou dafa am bu taalibe seex koy sant bu baax a baax moo tax na mu ma dara barki sëñ Fallou moto bu ma dawal bu ne moom ma koy jëndal ba bi ma andi sax billaahi wallaahi taalaahi parce que man du ma waxoon du quoi barki na mu ma dara ndax ma maa koy ñaan li mu bëgg yàlla ko defal di sant waa Jurbel ñëpp nag di sant jantal Mara borom buur paa Abu Kamo di ko sant bu baax paa Ernest paa Elu Robert aw ma seen fay jibi Zuwal maa ngi sant gaa yëpp képp kuy jàppale caatu ba xam nga maa ngi lay sant bu baax a baax a baax ngeen yokk ñaandi xam ne àdduna du benn fan te li ci kanam mooy dàq yoonu ndaw du gaaw te yaa ngi comprendre nag tous les promoteurs ci promoteurs ñu gëstu waa te jàppale mbër am ni làmb dafa metti rawatina nag combat yi xam ne dafay yàqu daaw bëri ko ci mel ni combat Siteu Papa Sow Eh, mbër yu ndaw yi man man yërëmoo ñaar mbër yu mag yi de man mbër yu ndaw yi laa yërëm mhm. imagine tey ñu fay la cent mille francs nga préparé ko amoo ku la jàppale nooy def na état jàppale promoteur promoteur maa ngi dégg nag ay association bu ñoom mobile bu ñoom bàllgee mais lamb daal ñëpp na nekk famille bokku ndey bokku baay mhm. ak association bi nga xam boor moo ko jiitee ñu ñëpp ñu bokku ndey bokku baay xam ne ñëpp intre lamb moo tax a jug dañaa mhm. comprendre ñu ñëpp intérêt lamb moo tax a jug jàppoo bokku ndey bokku baay làmb jëm ci kanam mais bu gaa jaaree fii rek gaa yi jaar fii mooy loolu na mbooloo mooy doole quoi mbooloo mooy doole di sant waa Njaageen nag ma cosaanoo waa Njaageen maa ngi leen sant bu baax sama baax Baye Cheikh soose ga waa Yerwaay suñu sa waagi borom Yerwaay di maa ngi lay sant bu baax a la gërëm di gërëm mafia aslèm raay ba waa dóoru yi képp jaay dóoru wala képp kuy accéléré dóoru mécanicien dóoru yi ñi nga xam ne su amee combat yi ma takkal koofa ku ci mel ni Babacar Dari capo de capo Babacar Dari borom benn tali doomu yaay wàllu Seck ak Balla Gaye 2 gis naa sa taxawaay caatu rëbës di sant xaarim bu sëñ Fallou sëñ Fallou. dajaloo xaarim mooy bu naaf. caat lu duuf ci nag yi a doo ci ñaan waa wasaare nag ñu am jàmm. jaajëf Seck ñu bàyyi la nga. moom damay santaat rek di jiiteel sant bi ci waa Yoff ñi nga xam ne bu ma amee ndam ñoom ñoo am ndam bu ma ñàkkee ndam ñoom ñoo ñàkk ndam waa Yoff Ngor maa ngi waa Ngor yëpp waaw di leen jox seen waati waay di sant waa Bogaam xam nga tubaab jalaaw todda yeen xam nga di nuyu sama per begaay mbay maa ngi koy ñaanal tamit yàlla bàyyi ko fi defal ko jàmm ju baree bari Modou mbay xam nga di nuyu ñëpp di nuyu waal Seck sama xarit sama doom nday maa ngi koy sant bu baax a baax a baax xam nga di sant ñi nga xam ne ñoo sonn ci man di ma jàppale ñi nga xam ne mënumaa am lu leen ëpp ñu mel ni Zo Baytir mbay xam nga ñu fi xam nga du jaañ maa ngi koy sant bu baax a baax sama doom nday maa ngi koy sant di ko ziar di ko ñaanal téeram bi yàlla defal ko ci jàmm defal ko ci xéwlu saawaan baawaan xam nga di sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant suñu waa koñ waa ngéwél xam nga seen fay maa ngi leen sant bu baax gis naa niñ may taxawoo samay combat waa tëgg xam nga samay grand nekk foofu ñoom kase cale maa leen sant bu baax a baax a baax sama waa kër nijaay yëpp maa leen sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Abdou Aziz di leen wax ne gis naa lépp yàlla na def jàmm di sant Ulay Thiam xam nga di sant tamit kële Anta Gueye maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waa koñ ba yëpp yëpp yëpp maa ngi leen di bégg lu baree bari di leen wax waaw gis naa taxawaaye daal Touba maa ngi sant ñëpp sama mbokk yi nekk foofu yëpp maa ngi leen sant xam nga fi mel ni Serigne Pissy xam nga Sall Sall Diouf xam nga. gaa yëpp maa ngi leen sant bu baax baax aw ma seen fay match pro maa ngi koy bëgg lu bëree bëri saal tubaab xam nga booyoo nga xam ne ñoom laa àndal foofu noonu man maa am lu leen ëpp tamit maa leen sant bu baax a baax a baax di nuyu sama mag nday mbay a borom Tiwaawan maa lay sant bu baax a baax Babacar Diagne borom bësdee bi <laughs> moom sama suur combat la woon bësdee am maa waroon daan may ko victoire bi mais xam nga dama ko plané woon maa ngi koy sant bu baax borom borom TikTok bi. maa lay bëgg xam nga di sant ñëpp ñëpp di sant staff écurie Yoff gépp waaw di sant Baye Ngagne suñu coach yoo gis nañ cofeel bi mu am si ñun yàlla na ko yàlla fay motali yéeneem ci ñun xam nga di nuyu écurie bi yëpp di leen sant ko ci mel ni Modou Gine Malick Niang grand frère yëpp gis nañ seen taxawaay ci ñun di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ju bëree baree bëri xam nga waaw di wax yàlla na am jàmm daal di wax tamit làmb ji ñu jàppaleen ci xam nga ndax duñ tëj boo demee BCEAO wala Ngor wala feneen ak feneen fekk mu fees dell. Mhm. man jour bi ñu tëjee làmb ji bi ñu xëyee laa dem BCEAO. wallaahi lazim li fa ne si ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll. Mhm. état nañ jàppale làmb te xam ne ñun ay xale lan. yaa ngi dégg koñ boo dem di nga fa fekk mbër te mbër mi bu génnee mbooloo topp ko. te mbooloo ma koy topp du doon ay caaxaan dañuy génne seen xaalis di ko def ci moom. xam nga te ñun ay doomi jàmbur lan ñun ay doomi sénégalais lan ñun dëkkuñu Éthiopie dëkkuñu. turki dëkkuñu fenn ñun Sénégal lan am fi lan fi lan mën a defee li ñuy def mënuñoo génn di ñi ñaa ngi dem di tëgg ay làmb Gàmbi mais neexu leen buñ señoon duñ ko def xam nga boo demee ci àll bi instant làmb yaa nga fa mbapat yaa nga fa ñi ñaa ngi bëre pourquoi mënuñ ñu ubbil suñu làmb ji ñu bëre te ñun ay xale lan di wax ne rek làmb lépp benn bopp la kenn mënu koo xar xar ñaar ay ay affaire association yooyu noonu man doxuma ci man mbër laa man awma man pour nekk fii di lijjanti ay kii kii gis nga nit ak nit yàlla moo lee ñu boole Ouzin yow yàlla dalay booleek ay nit. Mm-hmm. xam nga mbër yi ñuy jox ay ticket ñuy bëri ñoom la rek ñoom ñoo ñoom ñoo am fu la ñu leen jox wala ñàkk fu la ñu leen jox mais man loolu musuma dal te du ma ne tamit du ma dal parce que doomu aadama laa. Mm-hmm. xaw ma lii am sama suba mais am naa samay nit yoo xam ni promoteur bu ci faal ku si mel ne Fallou Ndiaye sama père sama xarit la damay dégganteeg moom dañuy waxtaan man moom dafa dépassé sax làmb dañuy déggante si yeneen dul ay làmb mm-hmm. kooku bu ci suuf jox ma. avance ma dem bëreel ko ndax ji jiwante na loolu. bu dul làmb bu dul dara. jiwante nan loolu est-ce que yaay comprendre. kon tey jii nii àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay muy man muy Thiatou Louga muy keneen ak keneen. yaa ngi dégg làmb avancé avancement Thiatou Louga la lamb avancé sama avancement la. yaa ngi dégg mais buñ bëggee toog fii nii kii naan fii laa bokk kii naan fii laa far kii naan nii laa def xam nga yooyu ay deuxième la. booy nan entrainement yaakaar seen doole pour am làmb loolu la bëre am mais bul jël sa làmmeñ rek bëgg di wax pour la gis nga làmb ji dafa commencé yàqu ndax làmb ji booyu bari rab lan ko jàppee làmb ji du rab làmb ji entraînement la liggéey ñëw jàkkaarloog sa morom ngeen jëflante yaa ngi dégg. Mhm. mais pas ay wax yu bari nekk fii di ratatati ñu lay indil ay te fi kenn loolu du làmb nañ gëm suñu bopp xam ne ay ndaw lan lu ñu amul ci ñun la ci ñun la dépendre. ndaw ndox la saa yu yëngoo tooy. la lazim nañ leen entraînement gëm suñu bopp. waaw man lool laa gëm. Mm-hmm. di la nuyu di wax waa wasaare yëpp yàlla nañ am jàmm yàlla defal leen xéwalu saawaan baawaan seen tale bi dem waa ba ci kaw a kaw mais booy ndaw yi ku ma ci jël dinaa la sukaama mukaama mu kaccaraama la. ma dama lay sukaama di la mukaama di la mu kaccaraama maa leen man ñoom ñëpp <laughs> samay moroom maa ci man. am ñoo xamante ne ñun tey ñuy jàppale na am ku ci mel ni maam Góor Samb heure sama amee combat dafay may xaalis yu bëri maam Góor Samb moo fayam sama grand Mor Jabab aw gay capo de capo maa ngi lay sant bu baax gis naa si ci man quoi lu wax Baye Fall ak Yaay Fall Baye Daaru ñu waaj màggal tuuba jàmm ak salaam xam nga ilaa Touba rek di si safar ci kàttanu kon di sandi foofu benn kii rek. màggal gi gars yi safar yi nañ def ndànk jël seen temps xam nga yóbbu doomu aadama yi ci jàmm ak salaam ñu ñëwaat ci jàmm ak salaam di ñaan màggal gii nii dàq gu fi mus a jaar ndax ñun ay doomu aadama lan ay taalibe Serigne Touba lan dañuy ñaan ñëpp am jàmm àllu àllu njabootu Serigne tuubaa gépp yal na leen yàlla defal jàmm du nuyu Ibrahima Mbaye As Malick ndax ñooñu dañuy sonn ci man mbay mbaay maa ngi koy sant bu baax waa Kër Maale Minam Ndoomoor ba Ndiaye sama mbokk yi nekk foofu ama seen fay waa Thiès sama kër papa maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen wax ñu yokkal ma ñaani waa di ma jàppal tànk gars yi di leen xëccal Mm-hmm. gis ngeen noonu lay demee fii ci jàmmaarloo tey maa ngi fi daloon ki nga xamante ni mooy sekk Ndaanaan ak Thiatou Rebeuss mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje Adama kontaan naa ci yow kàggu maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal ñoom ñaar ñi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf.